góor jigéen du fi amee baat góor jigéen du du fi amee baat du réew ñoom ñooy ñan ñoom ñooy les ONG impérialistes les ONG góor jigéen yi nekk ci réew bi dañoo war a wax ONG yi nekk ci réew bi nga xam ni ñoom ubbil buntu ay góor jigéen dañ leen a war a génne ca àll ba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 ba kenn bu mu nangu góor jigéen mu lambar lambaree ci dëkk bi waa ànd sàmm jikko yi li ñu bëgg c'est très clair on veut qu'une loi soit votée manière claire et limpide pour criminaliser l'homosexualité définitivement au Sénégal et je vais vous dire une volonté populaire va être respectée par la force par le président de la